wax la ki nga xam ni boo ko toppee doo réer te kooku du kenn ku dul Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa ngi ciy ndokkeel jullit yëpp bi ñaan yàlla na may ñu gàmm si ci jàmm ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam jërëjëf. wa waa sant yàlla xam nga boo dëkkee dëkk ci Tiwaawan ñun Tiwaawan burdu mooy suñu événement ñun Tiwaawan burdu mooy suñu événement mooy suñu gàmmu Tiwaawan ndax gàmm duñ ko tal waaye burdu su jotee ci la ñuy bégee ci la moom la ñuy dund. ñu ne Ceres Burdu mooy suñu gàmm kon bu jub see nga dëkk Tiwaawan nekk njabootu Alaaji Malick bu jotee di nga xam ni am na lu xew te yéen ñi nga xam ni yéen a dëkkul Tiwaawan sax yëg ngeen ni yëg ngeen ne yonent bi si na ndax jamono bii paase ak jamono bii wuute na ni mu tàngee woon ak ñi mu féexe nga war a xam ni salaay salaam ñëw na yàlla nañ ko yàlla doolee bëggloo am naa mbégte xam nga ñi ngi barkeelu ndax ñi ngi doon jara sànq ñi ngi doon jara te jara ji rek doy na barkeelu mooy jara iruna tumha bi jaahi muhammadi suñuy bàkkaar ñun ñëpp ñun xeet wi yàlla dinañu ko baal ci darajey seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu moo waral jara loolu moo waral jaraa jaraa mooy hymne national Tivaouane gis nga Sénégal am na hymne national waaye jaraa mooy hymne national lu Sénégal mooy hymne national Tivaouane comme ni Tivaouane nekkee xolu Sénégal maa ngi jégg lu baax a baax am naa mbégte ah di wax ne am nañ kontante bu baax xanaa di ñaan rek ah lii yëpp ñu fi wàcce ci lu baax yi yàlla na yàlla nongu yàlla fayal ñu sunu maam Haji Malick ndax lii lépp ah mooma ndax euh, ba ñëpp tànnee moom dafa tànn bis ba gën muy màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te it euh, ki yaakaar naa képp kuy jullit amuloo bis boobu kon ginnaaw yàlla sunu sunu yaakaar ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sunu ñaari waajur muy sunu su sunu maam Seydi Hadji Malick ñu tànnalee defal ñu guddi yonent bi ñu ñëw fii ubbite burdu bi dañ sant yàlla di ñaan yàlla ñu yàlla yàlla yàgg koo fekkee yàgg a teewe te bi yàlla bu mu nekk suñ mujj gi ñëw ran Mouride yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax am na solo ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaan lépp luñ fi ñaan rek yàlla na yàlla nangu ko ci barke yonam sallallahu alayhi wa sallam